asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yoon teew Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh na Ahmadu Bamba Xaadimu di jël lépp di ko teg ci loxool al xalifatul aam Cheikh Muhammadul Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi ci yokk ak wéram tey jii nag ñu fas yéene ñëw leeral leen liggéey bi nga xam ne Touba ci kanam euh, warlu woon na ko ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi muy weer wu nekk li nga xam ne moo fi jaar ci mbokk yi nga xam ne am nañ yéene feeñal seen seen yéene ci liggéey bi nga xam ne moom lañu seq muy liggéey Touba ci kanam yi nga xam ne moo fi dugg ci weer wi weeru novembre bi nga xam ne moo moo moo jàll loolu nag dañ koy tàmbalee ci dëkk bu tedd bii nga xam ne moom lañu nekk Touba ci mois de novembre bii euh, dugal na quarante neuf millions cent vingt trois mille cent quatre vingt. bi ñuy wax Wave euh, ci numéro 78 544 33 ci mois de novembre bi dugal na Wave bi dugal na. un million deux cent cinquante six mille cent quatre vingt dix francs euh, ba tey ci Wave plateforme mois de novembre moom it dugal na neuf millions seize cinquante quatre mille vingt francs Free Money ci euh, moom it dugal na ci mois de novembre bi cent dix neuf mille cent quatre vingt un Orange Money Dièse 144 621 600 6 millions 560 mille 943 francs. Dakar Baye Serigne Bousso ak El Hadj Ndaw 10 millions 413 mille 175. Nguy Murit Rufisque Serigne Maguette Dia 95 mille. Kayar Soxna Astuwaaj. trois cent cinquante euh, trois cent cinquante mille Mbacke sëriñ maam Mama Fall ak soxna Mbène Mbacke deux cent quatre vingt dix mille. Daayira Babul Ayaat Fouta Añaame euh, <coughs> soixante dix mille francs Thiès sëriñ Mbay Sall un million trois cent mille Diourbel soxna Ndey Ndiaye. ak soxna Daba Mbakke un million cinq cent cinquante cinquante cinq mille euh, Goudane Serigne Ibrahima Serigne Ibrahima Niang quinze mille francs Mbour Serigne Mour Sorang un million sept cent mille Jifeer Serigne Ousmane Ndiaye deux cent cinquante mille Xombol soxna Xumma Touré cent mille Goudiri Serigne Damba trois cent mille huit cent francs Joal Serigne Bassirou Thiaw sept cent quarante mille Cey Cey Soxna Faati Jabaay cent mille francs Louga Serigne Moustapha Bassirou Mbuub un million six cent soixante trois mille huit cent Kédougou Serigne Modou Lo cinq cent quatre vingt mille Ross Béthio Serigne Aliou Njing cinq cent vingt cinq mille Kébémer Serigne Goro un million cent sept mille Kaolack Serigne Moustapha Touré deux millions deux cent mille Ndar Serigne Redial Seck ak Soxna Rama Fall cinq cent vingt cinq mille Taïf Soxna Daba Thiam quinze mille francs mbay Serigne Abdou Fall cent mille francs Kolda Serigne Moussa Sène deux cent soixante et mille Ourossogui Soxna May Mbacké deux cent mille Serigne Mbacke Gueye cent mille francs Fouta Bokki Laaje Mouhamadou Fadul Dia cinquante cinq mille daru Muxti soxna Muslim Mbacke cinquante mille versement anonyme yi versement anonyme yi nga xam ne ñoo dugg ci weer wi ca seeni borom feeñaluñu seeni tur mi ngi toll ci un million huit cent sept mille huit cent soixante-quatre Moudrit Serigne Basirou Ndiaye cinquante mille Njawara Serigne Cheikh An 100000 Korosma Diaroume Serigne Modou Makhtar Mbay 50000 Bokki Diawé Serigne Talla Kane 80000 francs Casamance Serigne Momadou Khary Gueye 489 800 francs Minam Bambouk Serigne Ibrahima Congaan 50 000 francs sànc daara sëriñ Dame Gueye cent mille francs Matam sëriñ Ndiaga Diouf soixante dix mille francs Nobel Nobel Lay sëriñ Fallou Fall vingt et un mille Darou Fall soxna Khady Fall dix mille francs Ngoy sëriñ Assane Yadd deux cent soixante sept mille Koungheul sëriñ Youssou Souran cent mille francs Sànc Bamba sëriñ Khadim Niang soixante-deux mille francs Njumaan Maam Bousso Ngom cinquante mille francs Salim Koutiaba Serigne Keba Ndiaye vingt et mille francs Tawa Ndiaye soxna Nogoy Kebe mille francs Ndia soxna Sey Sène cinquante mille francs loolu mooy li nga xam ne mooy total encaissement ci biir réew mi ak li ko wër lépp mi ngi toll ci million millions 180 mille 53 francs CFA 94 millions 180 mille 53 francs loolu mooy li nga xam ne mooy li dugg ci sonn national bi nga xam ne moo nekk biir Sénégal kon ñu ñëwal leen ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la bitim réew dugal ci mois de novembre bi ñu tàmbalee ko ci zone Europe Portugal Serigne Mouride Wade 600 000 francs euh, Angleterre Serigne Fallou Diop 153 000 500 Allemagne Serigne Abdou Salam Faye 454 729 Turquie Serigne Abdoulaye Loum 700 000 francs Italie coordination Italie bépp 9 euh, millions 299 mille 255 France coordination France bépp 727 mille 380 francs Espagne Serigne Malick Dieng 2 millions quatre cent cinquante neuf mille trois cent trente huit bu ñu boolee zone Europe bépp li nga xam ne moo fi dugg ci mois de novembre bi ñu toll ci quatorze millions trois cent quatre vingt quatorze mille deux cent deux francs zone Europe quatorze million trois cent quatre vingt quatorze mille deux cent deux francs mooy li dugg ci mois de novembre bi ci zone Europe bi zone Afrique Togo Serigne Assane Mar cent mille francs Mali Serigne Aliou Waaj cent soixante cinq mille Afrique du Sud Serigne Mor Dieng un million cent trent quatre mille quatre cent francs Angola Serigne Mamadou Ba quatre vingt sept mille francs Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck six cent cinquante neuf mille huit cent francs loolu mooy versement yi nga xam ne waa Son Afrique moom lañ dugal boo ko totalee mu toll ci. deux millions sept cent quarante six mille deux cent francs totalu Son Afrique ci mois de novembre mi ngi toll ci deux millions sept cent quarante six mille deux cent francs CFA. Son Amérique tàmbale ko ci États-Unis euh, Serigne Soxay bu Seck ci mois de novembre bi quatre million quatre cent quatre mille cinq cent cinquante francs Argentine sëriñ Pape Sodo Sey sept cent quarante mille francs buñ too boolee ñaari versement yooyu nekk ci zone Amérique bi day toll ci cinq millions cent quarante quatre mille cinq cent cinquante Amérique seen versement mois de novembre mi toll ci cinq millions cent quarante quatre mille cinq cent cinquante. kon mbokk yi euh, bu leen boolee bu ñu boolee li nga xam ne moo fi dugg ci mois de novembre bi tàmbale ci biir réew mi. Euh, ci biir dëkk bu tedd bi ñu nekk muy Touba génn ci biir réew mi ñu nekk muy Sénégal jaar Afrique ñëw ci continent yi Amérique Europe. li nga xam ne moo fi dugg ci ay carte ak ay Russie yi nga xam ne moom la Touba ci kanam euh, encaissé ci compte yi mi ngi toll ci cent seize millions quatre cent soixante cinq mille cinq francs mooy li nga xam ne moom la Touba ci kanam. encaissé ci mois de novembre mu jóge ci carte de membre yi ak bloc de reçu yi ñu ngi toll ci cent seize millions quatre cent soixante cinq mille cinq francs jaayante zone nationale euh, trois millions trois cent vingt cinq mille huit cent quatre vingt six mille francs buñ ko boolee ak ak encaissement bi Touba ci kanam encaissé lépp ñu toll ci cent dix neuf millions sept cent quatre vingt dix mille huit cent quatre vingt onze kon mois de novembre li Touba ci kanam encaissé ci ci carte de membre yi ak reçu yi ak jaayante yi nga xam ne am ci zone nationale bépp bu ñu ko boolee toll ci cent dix neuf millions sept cent quatre vingt dix mille huit cent quatre vingt mooy li Touba ca dugal ci compte yi ci mois de novembre kon ñu ñëwal leen ci décaissement yi nga xam ne moom la Touba ca kanam décaissé jëmee ko ci sànce yi ak activités yi nga xam ne moom la Touba ca kanam warlu ci yëngu-yëngu yi muy nekkee. Euh, chantier bi ci njëkk mooy chantier ndaam Touba kanam dugal na ci 4 millions 510 francs université bi yi nga xam ne moom la sëñ Mouhamadou Mountakha woote ci jaayante bi euh, chantier bi ci Touba kanam warlu di ko liggéey ci mois de novembre dugal na ci un million cent 928 mille 500 francs Sànce Touba Ndiarème. 2 millions 580 mille francs total commission santé 62 mille 250 francs Sànce Darou Khadim 27 millions 607 mille 400 francs CFA 27 millions 607 mille 400 francs mooy li fa dugg ci mois de novembre bi. bu ñëwee ci total charge fixe yi nga xam ne. Touba Tarfix yi nga xam ne moom la Touba so euh, ci solaire yi ak euh, activités yi nga xam ne mooy doxal liggéey bi mooy sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fay nekk dafa yëngu li ñuy maslante ak ñoom ak euh, yooyu yëpp buñ ko boolee ñu toll ci cinq millions cent deux mille cinq cent. waaw journée nettoiement bi yi nga xam ne mooy ci engrais ci décaissement bi surtout nettoiement bi nga xam ne Touba ci kanam. doon na ko ànd ak ci waajtaayu màggal gi ak gannaaw bi màggal gi weesoo toll na ci un million cinq cent quatre cinq mille ci biir communication it ci ci kanam dugal na ci cent quatre-vingt-dix mille francs total budget de fonctionnement un million francs CFA. bu ñu ci loolu ñu ñëw ci euh, opération defar yoon yi opération defar yoon yi cent soixante-treize millions. 365 mille 220 francs commission environnement 1 million 426 mille 900 900 francs commission logistique commission logistique nag mooy commission bi nga xam ne mooy saytu mbooleem bagage bu Touba ci Kanam am moo xam matériel bi nga xam ne Touba Ca Kanam jënd na ko di liggéey ci opération defar yoon yooyu ngeen di gis lu mel ne pan tracteur pelle yeeg oto citerne yi ak nacelle yi ak auto vidage yi mboolem seen logistique mooy ki koy saytu ak carburant bi ba ciy dem ak seeni i yëngu-yëngu logistique mooy ki koy ki koy saytu logistique boobu nag euh, ci mois de novembre bi dugal nañ ci vingt trois millions neuf cent quinze mille sept cent quarante sept francs bu jógee ci logistique ñëw ci additionnel additionnel mooy euh, commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu. yaatal ndox mi ci dëkk bi ndax Touba Ca Kanam ku ne xam na ne euh, fos nañ yéene fépp foo xam ne nii dëkk bi la nekk ca ndox ak gu fa euh, bu laajee ñu jënd ay teewoo ndox gas ba ndox ma àgg fa euh, danañ ko def ca ñi ngi ci gis ngeen ci yu bëree bëri lu jëm ci wàllu forage yi pompe yi nga xam ne mooy paan ak yenn forage yi nga xam ne doxutoon ñu seet nañ ko doxale commission boobu ko yor mooy commission li ci dugg mi toll ci 17 millions cinq cent mille francs CFA su commission leeral leeral mooy lamp yi nga xam ne Touba ci Kanam jëndoon na ko fi ci ren jii mu jëndaat ko toll ci trois mille lampadaires yoo xam ne nii ñu ngi fi fi mu toll nii ñu ngi ci liggéey bi ci biir corniche bi ak li ko wër ñu ngi ci euh, li ci dugg ci mois bi ñu nekk toll na ci six millions deux cent vingt cinq mille ci jumtukaay bi nga xam ne soxla woon nañ ko ngir. di monter làmp yi ak ñi équipe bi ànd ak ñoom seeni jumtukaay yi ñu aajowoo. ñu ñëw ci fere yi nga xam ne bureau Dakar ak Touba fere nañ ko ci ci seen bureau yi jëm ci ay jumtukaay yi ñuy soxlawoo mu leen di jàppandal liggéey bi mu toll ci sept cent vingt deux mille quatre cent quatre vingt dix francs euh, frais bancaires yi nga xam ne dañ koy dagg ci conte yi waaye saa suñ ko degee daggee day dellusiwaat. mi ngi tolloon ci vingt huit mille francs fere banque yi yi nga xam ne banque yi ñu sëqal liggéey bi xam ne koppar yi Touba Ca Kanam fa lañ koy denc ci mois de novembre bi vingt huit mille quatre vingt neuf francs CFA. total de décaissement nag ñu leeral ko ci wolof mooy mbooleem buñ boolee li nga xam ne moom la Touba Ca Kanam génne ci mois de novembre bi ci wàllu li doon lim léegi ci gannaaw muy dépense yi nga xam ne Touba Ca Kanam def na ko. lépp bi ñu ko boolee total seen muy toll ci deux cent soixante sept millions cinq cent dix neuf mille six cent six francs deux cent soixante sept millions cinq cent dix neuf mille six cent six francs mooy li nga xam ne Touba Kanam génn na ko ci mois de novembre bii nga xam ne ci lañ génne mois de novembre bi li Touba Kanam dugal. ci compte yi lépp mu toll ci cent dix neuf millions sept cent quatre vingt dix mille huit cent quatre vingt onze francs ci mois de octobre compte Touba Ca Kanam mi toll ci neuf cent huit millions cinq cent quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept li nga xam ne moo fi nekkoon ci no octobre bi ñu génn novembre di dugg li fi nekkoon mi ngi tolloon ci neuf cent huit millions cinq cent quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept francs ñu ñëw ci décaissement yi novembre bi ci 2020 bi euh, Touba Ca Kanam décaissé na ci deux cent soixante sept million cinq cent dix neuf mille six cent six francs maanaam li ci Touba Ca Kanam dépassé ci lu jëm ci wàllu defar yoon yi ak jumtukaay yi Touba Ca Kanam di soxla woon lépp bu ñu ko boolee seen mu ngi tollu ci deux cent soixante sept millions. cinq cent dix neuf mille six cent six francs CFA kon fii ñuy wax ak yéen nii li toll li nekk ci compte Touba ci kanam yi nga xam ne saa soo demee ci banque yi fekk ko fa mi ngi toll ci. sept cent soixante millions. huit cent dix sept mille six cent quatre vingt deux francs mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu boolee ab liggéey ñu ànd ko. di ñaanal suñu kilifa gi wala nga tabarakala si Amadou Muntaxa ak suñu kilifa yi ñu bokkal liggéey bi ci njiital seriñ Abibu ak jëwriñ yi mu ko àndal sëriñ Abdou Lahad jaajëfal président finance sëriñ Abdou Lahad Mbacké jii ak mboolem administration bi ak mboolem ñu saytu lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf